maa ngi nuyu ñëpp ku nekk sa tour ak sa sant di euh, profité si occasion bi di balu ak euh, bépp jullit bi nga xamante ni tey dañoo nekk si weeru shawru ramadan di weeru koor di leen bal ak di ñaan yàlla ñu dugg si si bisimilahi rahmaani rahim génn si si alhamdulilahi rabil alamin comme euh, ni ñu ko xamee mouvement Sikki Jotna ànd ak seen président Abdoulaye Dieye at bu nekk dañuy organiser

couche vulnérable nag boo ko déggee mooy ñu mel ni ñi nga xamante ni ñu ngi si hôpitaux yi ndax ñëpp xam ni Thiès dafa nekk euh, hôpital régional daa nekk hôpital boo xam dafa englobé ay communauté rurale yu xaw a sori donc des fois dañuy xaw a am ay jafe-jafe heure dog jot euh, seen mbokk yi acheminé leen ay dogu moo tax ñu privilégié ñu ngi joxe ma ni leen da ngeen si privilégié hôpitaux yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci Thiès ndax euh, ay jullit lañ bu ñu wooree ba ngoon jot donc war nañoo am loo xamante ni moom la ñuy xéewaloo mais également ñu boole si daara yi dem joxe si biir daara ji ndax xam ni daara yi heure ndogo xale yi di dem di yalwaani loolu jàpp naa ni euh, war nañ ci taxaw moo tax euh, ñu privilégié di dem si daara yi également di lañ jox ay ndogu mais également dem si les points Euh, euh, de regroupement parce que Thiès foo gisee xam na heure dog nit ñi dañuy nek ci circulation bi taximaan yi jakartamaan yi képp ko xamante rek euh, japp nañ ni di nga tardé ndogu bëgg nañ euh, ci weer bi yépp mouvement Siggi Jotna ñi ma andal ñëpp sama collaborateur yi ak jigéen ñeeg góor ñeeg mag ñeeg ndaw ñi ñuy dem di participer di si jaamu yàlla ndax loolu aussi dafa am solo mais particularité bi mooy la qualité parce que nit aussi booy joxee lekk da ngay joxe loo xam dafa am qualité loolu dama si insister à chaque fois di leen wax ni booy joxee li ngay joxe na baax mais également li ngay joxe na bari ndax nit ki aussi boo koy jox da nga koy jox loo xam ne nii mooy lu doy kon ko xam nag euh, Ablaye ji xam ko ni si action sociale yi nga xamante ni eh, yàgg na ko def ngir Thiès parce que ñun it lu ñu ñor rek mooy Thiès boo xamante ni dañ ciy dugal suñu loxo ci wàllu santé ci walu éducation ci walu sport ci euh, walu infrastructure mais également si wàllu social donc nag weeru koor nag jàpp naa ni weer bu am solo la pour ñu def si ay action sociale donc nag action yi du rek nga génne sa poche joxe mais tey ñi nga xamante ni tey ñoo fi nekk ñëpp ñiy jël seen temps jël seen énergie jël seen jot di dem di joxe ndogu ñooñu aussi yool biñ ciy am yool bi la si ñëpp di am donc ne nit ñi xam ni weer bi weeru partage la weeru dimbalante la weeru solidarité la ñaan yalla nak weer bi mu nek weeru jamm ci réew mi nek weeru tawfiq yalla defal ñu sutura defal ñu jamm ba bi ñu am ci réew mi yalla defal ñu ko muy jamm ak salam ndax ñu ngi jëm ci ay élections donc mu nek ay élections yoo xamante tension am na coow am na wante jàpp ni lépp ci jamm lay mujjé lépp ci dal lay mujjé ñaan yalla lu fiñu bokk muy sunu coalition benn Bokk Yaakaar élection yi jëm yàlla may ñu ci ndam ba ki nga xamante ni moom la ñu tànn moom la son excellent le président Macky Sall tànn ñu mën a am gagné au premier tour ñu koy ñaan ci bés bii di di di weeru koor ñaan ko fi nga xamante ni mooy hôpital régional bi ñu ñëw di dimbali ay néew di doole pour ñu ndogu yàlla defal ñu jàmm defal ñu jàmm ci Sénégal yëpp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum